di leen jaajëfal bu baax a baax li ñu topp ci Leewtoo TV di kontaan ci yéen ni ma koy defee chaque jour Leewtoo ak nee naa leen à chaque fois champion leneen seeti am ah, te ñu toog ak beneen daanaan beneen xale nee leen kooku du toog sax di tudd jaar-jaaram lu may tudd kan ak la daan ah waaye doomu Casamance la xale bi nga xamante ni moom mujjee daal kii di Moussa Ndoye fee ci arène nationale dañ koy nuyu rek laaj ko nan la préparé komba bi combat bi ak après combat bi fan la jëm Sa Thiès ngi lay nuyu. waaw mooy Mbacke maa ngi lay nuyu di nuyu sa équipe yi di santaat yàlla baax di ñaanal ñi génn àdduna yàlla leen yàlla yërëm te xaar leen àjjana ñu tëdd hôpital si yàlla yëkkati leen ñu caa féete ginnaaw yàlla ñu caa féete kanam di ñaan yàlla jàmm ci mim réew di nuyu kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi waaw di nuyu njabootu Sëriñ Tuubaa yi di nuyu tamit njabootu maam Limaamu Laay Baay Ñas euh, kaw la bàyyi ma fenn ku lim di ko juum yuuf euh, di nuyu suma sëriñ Sëñ Abdou Karim di ko ñaanal fan yu gudd ak ñaari waajur su may mbokk ak samay encadrement ak samay staff ak nit yoo xamante ni ñoo ma gunge ci làmb ji ma am ci ndam. balaa ma ñëw ci làmb ji préparation bi Salif ndax nga dundee préparation komba bi. waaw ah, métti woon na mais xamoon naa ne bu méttee rek dana mujj neex parce que mm, naan boo bëggee tekki ëllëg rek da nga ci da nga ciy teg sa tànk da nga ciy xar sa tànk tubéy. Mm-hmm. loolu mooñ ci daloon rek. waaw ñu entraîné ànd ak ñu war a àndal. def tamit li ñu war a def. waaw parce que bi moom fii laa ko préparé. papi moom ci moo ne ko suma coach bi. Sall Diallo bi Sall Jibilo. yenn saa ñu dem diin école de lutte bi nga xamante ni mooy suma école de dubales di fa nuyu ñëpp muy bëri fa nekk ñëpp li ci kaw ba ci suuf ku lim mais nuyu bi maa ngi koy teg ci ñaari loxo jëm yi di mbay soos ak ki nga xamante ni mooy BG Junior. Mhm. dañuy daal di xuus ak ci bi bi. open press bi ñëw Sa Thiès indi chorégraphie bu bees indi style bu bees indi cent pour cent assurance boo xam te nii dalay wóor ni kii fa jëm da koo ñeme lan moo warul nga ñeme fi nga jëm. waaw li ñuy liggéey la rek te teg ko ci wér wér ko ci loxo yàlla. loolu mhm. la parce que fii digg liggéey ba sonn nga dem ñu daan la jël bu yomb baa ñu daan la jël bu metti mhm. yàlla rek a yan daal dëgg yàlla. Mhm. ñu gis sa diggante ak Moussa Ndoye dem dugg arène nationale nga ñëw mu am ay coow jàppal bàyyi lan moo nekkoon seen diggante yéen ñaar. non non amuñu problème parce que man ba ba ba affaire di njëkk am yaakaar naa ne boobu moom moo daw wut si ma boobu ma wut boobu maa ngi yéen daal dèjà ñu ngi naan. maa ngi naan sama micro maa ngi naan sama gars yi génn leen suñu diggante. Mhm. man ak moom la. xaw ma na ban bruit moo fa amoon mais après man maa ngi bëgg dem di gëstuwaat. Mhm. ci lañ ma sànni suuf sama bët bi moo tax mu néewee nii sax. Mhm. xam ma mais amuñu benn problème franchement parlant amuñu benn problème parce que Moussa Ndoye mbër la yàgg na ci làmb. moom mbër bu respect mbër mbër bu yaru la. Mhm. daan nañ ko dégg ci lu bëri. Mhm. voilà. boo nee amuñu problème dama ci teg sama loxo foofu noonu amoo leen problème Sa Thiès nga Moussa dooy bàqu nga may ko yow nga bëgg a bàqu mu tere la bàqu lan nga gisee loolu yow. <laughs> non loo man bàyyi bi ci xel dina mënumaa tere bàqu fa dëgg yàlla. Mhm. ndax xam nga bu ñu ko xatee fa fañ doon bëri di arène nationale dafa am sécurité. waaw mënu ma ko xañ bàkko parce que bàkko for force la bu bu ma neexee bu ma nakkaree day bàkk for force moom it c'est la même waaw kenn terewul sa morom bàkko ma xëy na nag ambiance bi mooy dem ba mujj bi mooy loolu ak yëfi géewal rek yëfi géewal non yow da nga a bàkku waa tëgg waa tëggkatam yi konde du tëgg waaw loolu du ci dara dëggoo moo tax yëfi géewal la rek seen biir mhm. mais man teewul li may bàkku man maa ngi koy maa ngi koy bàkku te liñ may bàkku li ñëpp a koy dégg mhm. léegi dañuy dañuy dugg ci combat bi Sa Thiès commentaire ñu naka la bëree combat bi waaye taal loolu nga ngay bëre boo geesuwaan gis Balla Gaye numéro 2 soo geesuwaan gis suñu papa yàlla na ko yàlla yëgati ci jàmm ak salaam. amiin nga dem jour combat bi gisoo leen lan ko yëg. no borom sama sago kenn ku ci nekk ma gis la mais xam nga. pression sa la ma gën a tegal waaw dëgg yàlla. Mhm. su mbaa moom ku ne xam ne diggante diggante bàyyi ak doom yërmande gi ci am. Mhm. ak yéene bi ndax sama papa de dèjà semaine bi yëpp lekkul mhm. te mi ngi tëdd feebar mhm. te kenn ku ne xam ne ni boo feebaree tey la war a mooy nga lekk ba suur di naan ma mande mhm. aussi stress bañ a def stress amu ci yow yoon mais dama combat bi moo taxoon ma a dee yàlla xam nañ jour ma may li muy wax ak ma ne mi ngi jooy billaa wallaahi wa taala moo tax combat bi dama jëloon lépp tekk sama bakkan parce que tamit bëgguma koo ñàkk waaw bëgguma koo ñàkk ndax da cee bokk moom bi ngay dem làmbu ja nga jóge fii dem Kër Massar Balla Gaye numéro 2 sa papa lan lan lan la yabee. non dañ ñëwoon naa jël sama temps rek xam nga bañ a yàqamtu combat bi. man mhm. loolu ma wax. Mhm. parce que man ku ma conseillé dama naan la combat bi bu la neexee jarul ngeen may conseil mhm. man xam naa li may def xam naa li Moussa Ndoye di andi. man loolu laa doon wax ba ci bu ñu daan wax su ma leen di wax dañuy yaakaar ni damay mbalak affaire yooyu. man xamoon naa ne Moussa loolu lu ñu mësul gis. Sa Thiès di bëre waa Gambie ñëw waa Casamance ñëw dañ daan naan sax Sa Thiès amul mbooloo mbooloo Balla yi ñoo ko yóbbaale. sa combat bi ñu gis changement boobu lan la. waaw ñi koy waxee dañuy wax lu ñu xamul rek parce que man ni ku nekk dafa am fu mu jóge te it yàlla dafa ma moo ñaala ay nit boo xoolee sama combat boo ñaaw rek li ma andi sama supporter xaw ma nu toll. xam nga yàlla nag mooy dogalee doon doomu aadama mais man dama am sumay nit yoo xamante ni dañ ma bëggal rek te yàlla tax. ñoom dañ may ñëw leen sant. am loo xam ne dama ko bokk ak Balla Gaye dañuy ñëw estat am ñoo xamante ni ku nekk ak tamit fa mu lay fa mu lay bëggee mm. ak façon bi ak yaa ma gën a xam mm-hmm.